waaye sa mbokk mii nga dendal Cheikh Moustapha Abdoul Karam mu sëriñ Muntaxa ba ngay ànd ak sëriñ Muntaxa yàgg na lool waaye ku yàgg ci teen baag fekk la ca sëriñ Moustapha asgor nga ab jullit nga nga dend sa doom yaa ko indi ci bis bi muy directeur Senelec Pape Demba bi tey courant baa ngi wër Pape Demba bi tey mii def la bàyyi nga dox digga mag Cheikh Mouhamadul Muntaxa xool ko teg ko fi nga ko war a teg def ko ni ko war a def boole ko Cheikh Amadul Muntaxa teral ko teeru ko ni ko bi tey doxal te liggéeyal yàlla ak président Macky kon loolu am nañ ci solo sëñ Ahma sëñ bi soraka ju baax ji dafa ñëw léegi Cheikh sa sa doom ju baax ji sëñ am sa sëñ am Ahmad Mbakke mu sëñ Moustapha Abdoul Aziz Ahmad Mbakke jàmbaar ji sëñ Mahamadan mu Cheikh Abdoulaye Lahat mooy dugg si noonu sëñ Mahamadan mi ngi ngi ànd ak Abdoulaat Ka maire Touba siyaar këri diini yi Cheikh Gaynde Fatma Mbakke ñu ngi kontaan ci bi de Canada gi nga jànge woon siggal waaye sa eh, eh, mënul xalifa bi nag Serigne Moustapha mi nga xam ne tey mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di doomi di doomi Cheikh Sidil Makhtar nga den nag Cheikh Abdou Lahad moom mi Cheikh Bara Abdou Lahad Mbacké moomu toog ak sëñ Sidi Abdoul Aziz mooy Serigne Bara Serigne Moustapha mooy Cheikh Moustapha mooy déglu baayam bu baax ba sëñ Amadou Maxtaar waaye di kenn Cheikh Amadou Muntaha kon bu ngeen toogee gu mbind yëpp toog nañu Cheikh Mbakke Cheikh bég nañu bu baax ci délégation yi fi ñëw yëpp sëñ Cheikh Oumy moom sëñ Fallu ma nga nee toog Fallu bu sëñ Jaxriw ba cam ñeel ma ne ma kunta 45 la sëñ xale sëñ Fall toog ci xalifa gi ñu kuur ba ndañ rafet na ne muut das na sas ba ndar juróomi sooroon sang Fall bu ne lu ñuy tàbbi doog fay jógee léegi nag Cheikh dañuy bëgg a jublu ci waxtaan bi continuer waaw ana Xaadim Mbay na jege si continuer Xaadim ngi rafet ngi rafetlu teewaayu mu xadimaatul xidma mooy daayira ba nekk ci jumaay Tuubaa Serigne Bass dafay jëf ay teraanga di wax ay nit ñu fay jëf ay teraanga sëñ ñaari sëñ Abdou Lahad Bousso yi Fallou Mbacké mu xadimatul xidma ñuy partenaire u sëñ Abdoulaye Dia Sénico sëñ Abdoulaye Dia Sénico nag ak alaaji Moustapha Ndiaye dafa am lu leen sëñ Pape Malick tudde woon mooy les jumeaux neena naa yi am na ñetteel muy Serigne Bass su ñetteel amee ñoom la ndax loo looy bañ Serigne Bass yëg ko bu ko wax Moustapha wala Abdoulaye Dia loolu yàlla dogal jërëjëf Serigne Cheikh Anta Samb jërëjëf gaynde Serigne Baara di Serigne Bassirou Mbacke xaarib awa ñu ñëw nag ci ñi nga xamante ni si ñoom lañuy ñuy rendre hommage ci bis bi ginnaaw biñ ko tuddee Serigne Cheikh Anta borom Daaru Saram ak ju baax ja Serigne Afia waaye Serigne bas di ci rendre omage ay jàmbaari l'islam ay jàmbaar yoo xamante ni si ay référence lañ ci réew mi ki ci njëkk di Serigne Abbas Mbacké mu maam Thierno borom Daarul Muxti ki ci topp di ma Moustapha Massamba moom ma Massamba Issa Dieye ak Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalifa xalifab Seydina Limaamu ba tey mu ci rendre hommage Serigne Pape Malick Sy moom Serigne Sidi Aboubacar Sy moom Cheikh Sidil Hadji Malick waaye di ci rendre hommage jàmbaari l'islam Serigne Moustapha Absa Jaxate moom Serigne Modou Awa Balla moom maam Thierno Ibra Faty Ndaabal Daaru Muxti waaye di ci rendre hommage jàmbaari l'islam di Serigne Oumar Dia Daaru di ci rendre hommage Serigne Modou Makhtar Mbacké moom Serigne Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Ibra Faty Ndaabal Daaru Muxti waaye di ci rendre hommage Thierno Alpha Mamadou Sow bu war a di ci rendre hommage jàmbaar di ci rendre hommage Thierno Alpha Mamadou Sarr bu war a di waajuru Alaaji Tayiru Sarr mi fi yónni délégation bu rëy bi di rendre omage jàmbaar Alaaji Ndama Fall Sénégal Broderie njabootam gépp teew nan commencé ci teewaayu ci turu alaaji Mamadou Daan Fall ak rakkam yëpp teew nanu di rendre hommage jigéenam xaritam soxna May moom Serigne Modou Fatou Khary ba tey muy rendre hommage jàmbaar l'islam nituk alxuraan di Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Fallou di ci rendre omage Serigne Khalil Mbacke moom Serigne Fallou waaye di rendre omage jàmbaari yoon wi di Baye Fall di Naar Fall. di Serigne Abdourahmane Fall Tilala di rendre omage ba tey Serigne Gora Ngom Xelcom waaye mi ngi rendre hommage xaritam soppeem wax na ko démb ñu yàgg lu ëpp euh, ñaar fukki at ak juróom-ñaar muy Serigne Galas Mbacke Serigne Galas Mbacke moom Serigne Modou Moustapha Mbacke Fallilou mi ngi ko ci rendre di rendre hommage nag jigéenu boppam yaayam doonoon xaritam di Adja Marème Coulibaly Serigne Bassirou Mbacke lii. mooy re wax naa ko ni affiche bi képp koo ci gis rek bu doon parrain wala enveloppe doog ko tuddee waaye li ngay wax ni booy war goree di da ngay dem kër fàtte képp kuy fàtte gore woo ay jàmbaar xeex ci tooru lislaam ay ga ay jàmbaar nekk ay référence ci réew mi ba wuyu seen boroom nga leen di fàttaliku yow fàtte woo bis bi kon Serigne Bassirou Mbacke yal na yàlla guddoo sa fan jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbaye soxna maam Ami Diop moom soxna maam Assane Serigne Bara ak mbooloo mi mu àndal yépp seeti sëñ Tuubaa yépp ñëw nañ délégation Sarsara ñoom itam ñu ngi rafetlu seen teewaay soxna Yaaram Mbàkke moom seriñ Maxtaarum sëriñ Afe moom itam ñu ngi rafetlu teewaayam sëriñ Afe Moxtaar moom itam gis naa ko ci délégation bi mu mel ni parole yi la ñuy dugg ñu ngi ñaan nag ndax direct bi ku ne xam na ni 14 heures incha allah la ñuy décroché mu mel ni sëriñ Cheikh Aziz di sëriñ Cheikh Aziz moom sëriñ Abdou Aziz Baara sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mooy tijji jotaay bi directeur général bu CICES ñu ngi koy sant El Hadj Souley Diagne ki nga xam ni def na juma ca Touba la Serigne Touba ñaanoon ca Touba wal tusbitan fihi jamaatan tuqiim asalawatul xamsa dëhban yaa hakim dugg nga ci ñaan googa ànd ak Cheikh Silla mum soxna ki ne kanji mum Cheikh Moussa Falilou Serigne Makhtar Jenn mum Serigne Mor Jenn Serigne Makhtar Jenn di xaritu Serigne Bass di doomi ndeyam ñëw na Dame Diané mum Serigne Ndiol Diané ca njaareem ak ak Adja Amilo yónnee na fi ay teraanga ñi fi yónnee teraanga nag mënee su ko lim ndax damaa wax ni sëñ Moustapha tey la collecteur bis bi sëñ Cheikh bismillah sëriñ Cheikh Aziz bismillah moom sëriñ Abdou Aziz Bara borom xam-xam bu yaru bii te baax ñu ngi ñaan sëriñ Bass nee na kaddu yi mën naa nekk 3 minutes 3 minutes wala 5 minutes maximum ndax dafa bëgg lépp jàll ci direct bi du sëriñ Cheikh Aziz jàllee sëriñ Bara laat mooy jël kaddu ñu ngi ñaan Moustapha Sow bàyyam a ngi nii toog di kilifa. di nit ku baax moom itam mu jëf ci bis bi jëf ju rëy ñu ngi rafetlu délégation soxna maam xari Mbàkke ànd ak rakam xam nga ni Fatima Samba ak soxna Lo Diop ak Moustapha soxna Mbay ñoo bokk lépp ni nga dare sa rakk ji dare ko sa doom ji rafetlu nañ ko bu baax a baax ñu ngi ñëw ci délégation